yebal sax ji la ne lii kenn la est-ce que amul ci biir géej gi laaste benn goo xam ne daa suux day waaw jàppal ne takk der yi nga xam ne ñoom ñoo ci biir géej googe la marine nationale waaw daal dina ñuy for nag lu tolloo fanweer ci ay néew inna lillahi wa inna te gis nga xale yooyee waaw am na ca ñenn ñoo xam ne day bracelet Pastef yi lé lañ takk seen loxo ay waay mbëggeel ay mbëggeel ak Ousmane Mile libération yi nekkaa ne gis nga gaal googee nga xam ne nag maanaam moo suux ci waaxu Ndakaaru njaay jël joob yi lé waaw nga xam ne ñoom ñoo demoon te ñoom day ba di leen for la ñu wax doy na waar waaw waaw dama ne la am na ci benn nappkat boo bi day nee na bi ñu jege see waaw xet boo xam ne moo ñu doon xeeñ day daal dinay doy waax waaye gis nañu ay nit ñoo xam ne tamit seen i yax dong lañ fa fekk allahu akbar allahu akbar te moo ni day fanweer ci ay néew waaw la ñu compté laa la wax la ñu compté kay bés fi la journée na jàppal ne gis nga néew yooyee ah am na ci benn gaal goo xam ne day mbuur la jóge woon booboog léegi mat na ñaari weer njortees nañ ni day ñoom la ñu for ni lay allahu akbar terminé yéene man nag maa lay expliqué waaw li nga xam ne moom la nguur gi def ba gone yi di jël seen bakkan laa la wax benn secteur privé ak informel bi nga xam ne nag maanaam nguur gi da leen xot ba maari day taali waaye géej gi nga xam ne ko nañ koo jël daal di koy jaay lii bokk na ci dogal yi nga xam ne moom la nguur gi la jël ba tax na xale yi kon di dem aha waaw waaw dama ni la gis nga déguerpissement yi ay junni junni ci ay chômeur la ñu indi laa yo wax ni la ci marchand ambulant ya la bar réew mi ko di yéene xanaa xamoo ne looloo tax day waaw taux de chômage bi fi mu nekk nii ragal lu na lool ni muy yéegee jéggi na dayo ginnaaw benn enquête boo xam ne day ci biir réew mi la ñu ko def ci emploi des jeunes waaw bés fi la journée ANSD day moo ko def waaye wàllum semence bi la ma nga jëm kaw de 3 pour cent mar d' Italie waaw waaw 24 heures yéene kaa ne en tout cas Bassirou Diomaye Diakhar Faye day ca tribune Nations Unies assemblée générale ba waaw nee na waa adduna bi ak tubaab yi la gis nga ëllëg gi la ñu bëgg moo ñuy commandé ne waruñoo bàyyi kenn ca wet ga laa la wax ngir ñu mën a jàkkaarloo ak nees def ba dellu si waat kaaraange dellu si kumba am ndeye kumba kumba amul nday dañ fii ndool gi dañ fii wàllum sis ki lée tolloolee am tax ñëf Bassirou Diomaye Diakhar Faye day président de la République bu Sénégal yamu ca parce que nee na gis nga bor yi nga xam ne moom la ñuy leb ñi lée ngir ñu attal ko waaw ca kay leb lee laax waaw kay waay tey lépp le la te kay lépp le la Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi lée yemu ca parce que président nee na gis nga nag wàllu mi lée éducation wàllum tàggatu ki di wàllum formation professionnelle et ngir xeex ñàkkum xam-xam xeex réer wutal gone yi métier jox ay jumtukaay Bassirou Diomaye yemu ca parce que waaye Ousmane Sonko ji dey waaw nee na ndaw yi lée li ñuy yëngatu yëpp ci lu jëm nag ci wàllum yorin ngeeg yooyee ak fa ñuy jëlee dogal dina sa ko a ne laay lii lépp moom buñ ko defee ba nuppi nag sàcc gi mel ni tulleeg ma lee moo ma ci jaaxal ubbil libération yi ne kaay nañu xoolal seen kuréel ga association de malfaiteurs détournement juróom fukki tonnes ak ñaar ci ay ceeb lañu sàcc seetal xaalis boo xam ne kon bu saltale di wàllum blanchiment de capitaux allahu akbar coowal Ali Zeydan Ngala lu ci dooloo juróom-ñaar ci ay agent société générale de surveillance ak société des industries maritimes Simar ak directeur <laughs> boobu Simar Essaya nee nañ ko ràpp kannaar xanaa xamoo même banque yi dañoo tiit parce que Ali Seydaan mi lée daanaka lam fa yor ci ay bor toll na ci ñaar fukki milliards yaa lala ay lii lan la waaye coowal or bi lan la yëral yoor yoor yéene kaay nañu ay révélation yu doy waar a doy waar lu lëndëm lool waaw waaw Macky Sall mi lée ndekete jox na Abdoulaye Sylla lu tolloog ñaari téeméer ak juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ci kilogramme d'or allahu akbar la ilaha illallah maa la wax li te tey nag ma wax la deux mille sept cent kilo kilogramme yooyee ci or nan lañ ko séddalee ak nan la mbir mi kon demee daal di koy détaillé bu njëkk ba mooy juróomi téeméer ci ay kilo or pur à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ay baar lañ ko def allahu akbar ñaar fukki paquet yu vingt cinq kilos bu ca ne ñëw ñaareel ba nag sept cent cinquante kilos d'or pur à neuf cent quatre vingt dix neuf virgule neuf yooyu moom ci ay fanweeru paquet la ñu ko def yu vingt cinq kilos bu ca ne la ba nag mille kilos de grain d'or yooyu moom quarante la ñu ko def de vingt cinq kilos bu ca ne ak vingt paquet yu vingt cinq kilos d'or brut yéen a kaay Serigne Salou bi de waaye yow bi de est ce baax na ordre boo xam ne yow ña ko daté le 17 février 2021 est ce que que opération boobee de transport des deux mille sept cent cinquante kilogrammes d'or defuñu ko ci année wu deux mille vingt trois bi looloo jar a laaj est ce que Dubaï ci boppam kon lañ naroon a yóbbu or boobee loolu it laaj la est ce que or boobee dëggantaan njaay yegg na Dubaï loolu tam laaj la est ce que or boobee tamit ko ca réew ma nga xam ne kon fa doon defee transit ba loolu it laaj la laaj bi kay mooy la joob mi ne coom li lan la les ko yéene kaa man na xam ne kon takk waaw daal di nañ koy defal kon la Diop daal di koy déglu moom mi nekkoon kon ministre des sports waaye directeur général LONASE coow loolee ko yóbbu kon foofee te gis nga enquête bi xam nga fan la gaa yi jëm waaw alal julewul enrichissement illicite ardita gaa yi dama ne la déglu nañ ko ñetti waxtu laa wax waaw waaw bokk na ca laaj ja ko enquêteur laaj laaj ba mu ne Diop ko ndax da ngaa yor coffre fort sa aw ñaata compte bancaire nga yor aw est que sa kon da nga leen doon defal ay prêt aw ndax yor aw ñaata nga doon fayee ko weer wu dee la aw ñaata nga doon dépense par weer aw bañ paree day waaw lañ ko yóbbuwaat nañ ca commissariat bu port moom la diwoo pala fanaan yéen a kaay Cheikh Omar Ndaw gi de normalement ji lée ñaari parti dañ leen a war a def confrontation ah, waaw waaw waaye benn avocat wu la Diop day nee na est-ce que Mohamed Dieng bu woon xibet dana ñëw looloo jaralaat te boo leen gisee la Diop doon teg pression Mohamed Dieng pour mu jox ko xaalis pour esson sooru Guédiawaye football club bi la sursaane moo ni yi nga xam na ne ñoom ñoo nekk nag maanaam ca wan xbet boobee waaw mais xam le nañ carrément ne tey jilee danañu ñëw nag ca confrontation ba face a face waaw waaw waaye wax nañ tamit ne jox nañu xaalis bu bëree bëri laa lay wax ni lée moom la jóob mii waaye la jóob nee na c'est pas vrai loolee du dëgg yéen kaa la jóob nag na kon enquêteurs yi ne leen dëgg la yor naa benn société kon ca France ci weeru ut gii ñu génn ni lée laa ko créé pour mu jógee ci lii dem ca loolee reconversion ba waaw bi nga xam ne dama ko yor naa lew liñ may tuumal dara nekku ci dëgg yéen i kaay daaw da càmmi ne coowal Jérôme Bandiaky waaw garde corps boobee day bëri na ca lañ koy bokk na ca nag yor ngànnaay te waru koo yor détention illégale d'arme wàllum njuuj njaaj escroquerie ndax ma nga toog ca kër logement de fonction usurpation de fonction ndax ca passeport ba day agent administratif lañ ca bind te waaja liggéeyalul buur ak yeneen i sarsa sax ca jamono joo xam ne nag maanaam réew maa ngi mel ni supp kànja di jax-jaxi ah politiciens yi day da ngay defar seen i quotidien yéene kaay na dëgg la alliance ngir élection député yi lé day ay gawar yu mu yéeg lay wuddee ndaxte ginnaaw ba mu waxtaanee ak waa PDS ba nuppi ak réew mi waaw waa affaire ña ngay waxtaan ak Aly Ngouille Ndiaye waaw waaw dama la alliance yaa mel ne tulleeg maa la yëral l'info yéene kaay nañu coalition sàmm kaddu ah judd na sauver le Sénégal Khalifa Sall nga mu àndal la coalition boobee sàmm sa kaddu sauver le Sénégal les éco yéene kaay ne coalition boobee cheikh yu boo fa toogal Serigne Moustapha waaw tribune yéen a kaay ne dama ne la juróom-ñaar ci ay punkal yoo xam ne day ci benn coalition lañ nekk laa la wax aa <laughs> waaw waaw muy waa PUR cheikh yu ma leen fa toogal Khalifa Sall mi la ak Barthélémy Dias Anta Babacar Ngom Déthié Fall Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum ak Pape Djibril Fall laast en tout cas opposition bi day coalition yi bëri na mais lii kenn mënu koo jàmbar les écoles yéen a kaay ne ay satatal sal tamit day waaw seeti député yi waaw waaw 24 heures yéen a kaa ne kër Abdoulaye Wade di PDS day ma nga sawar gu tas maar di parce que Tafsir Coy day ak ñoom Doudou Wade ak ñoom Wade Sarr waaw créé nañu PDS authentique ngir ëllëgu parti bi lañ bëgg a téye Ibrahima Diop honorable député daal dinay démissionné génn na PDS le mandat yéen a kaa bi nga xam ne la APR ak PDS ànd nii mën na leen ay liste parallèle parce que PDS am na ci ñoo ak PDS direct news ne eh. ginnaaw élection député yooyu bu jàlle waaw Pastef day am nañu projet bu bees aha waaw waaw xam nga Macky Sall bi mu toogee ci nguur gi daal daal limite âge président de la République dëgg la la mu def day éliminer ca saasa Abdoulaye Wade Sonko tamit daa bëgg a modifier ay constitution bi de nga xam ne képp koo xam ne nekkoon nga président de la République doo mën a dellu si waat yéene kaa gi ne loolee nag Macky Sall ci boppam day la Sonko bëgg a ak bépp doomu aadama boo xam ne dañ laa condamné ngir wàllum corruption wala détournement candidat doo mën a nekk candidat te loi boobee tamit Sonko bëgg day Khalifa Sall Karim Wade ak ay politiciens yu bëree bëri nga xam ni seeni dossier ma nga nekk tribunal lay visé wal fa jëri ne campagne électorale bi day ak jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci presse bi waaw Ibrahima Bakhoum formateur en journalisme nee na gis nga wàllum corruption bi xam nga lan lay dundee manqué moyen critique yéen a kaay ne waaye yow bu seer bi lé waaw ministre Moustapha Sarr day daal dina koy jiin masse salariale Sénélec Sénélec bu weer wi dee li ñu leen di fay ci xaalis salaire nag yooyee ministre bi ne daa jàpp ne looloo tax kon ba courant bi seer waaye syndicat unique des travailleurs de Sénélec Sutelec waaw dañoo waaru nee nañ Moustapha Dieng Sare mi lée mu wax yomb na de li mu wax yomb na de <laughs> waaye sare de li mu wax ak lu mu yomb yomb yomb yomb yomb yomb yomb bu leen suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxul a jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree mën a la alaaji tëjal mooy Sonko boo paree mën a la